mooy keroog la génn kër yàlla moom iblis parce ndigalu yàlla def la àndal te moom bàyyi na mais aussi aadama itam ci moom la tere yàlla njëkke te tere yàlla bàyyi la àndal mais bi tere yàlla ñëwee ci moom bàyyiwul dafa def ها فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة هل نلن الجنانغوك لفنة لون لن عدم يكسج صحن حواء لفنة لون لن لك لن لولن نير نان لن لولن نير لن fu jekk ci yéen yépp mais am na garab bu leen ko laal إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى من لخو فأكلا منها tere bi bàyyiwuñu dañoo def donc ñaari yi mooy problème yi ndigal bu ñëw nga dindi bay def gi dem indi fa bàyyi ak tere bu ñëw nga jële fa bàyyi indi fa def ñaar yi ñu jox yu ñu yu bokkul looloo tax yàlla li leen laaj fa bi ay alaayi rabbikuma tukadibaani man ngeen di fenloo xoolal boobu ni mu garaawe man ngeen di fenloo fa bi ay alaayi rabbikuma tukadibaan moo tax mu xam ne nag xamadi googu am na lum dul àndal il fallait ñu wàcc ba ñuy yaraat leen parce que nag dañu fuuy iblis nekk na kër yàlla ànd ak malaaka yi ba fuuy xamul ki mu am kan la mais aussi it aadama nekk na biir aljanna aljanna neex ba gisatul yàlla mi ko ko jox moom it mu fuuy il fallait ñu wàcc ñoom ñaar ñëpp حمدي يالا نك دي لين فاتلي سين بوب دي لين ما باخ رك يالا دا فام فايدا ما باخ رك يين في سا وورو لين في خاند نيوم ñaar ñep parce que yow nit yow mi titeru yaay خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار يو تي سوف تي بان رك لا لبند يو نيت يو جن ابليس تي سفر لا لبند لوتاخ نين دي تيترو لوتاخ نين دي فوي متاخ نك كي لا وخه بات بونو خامي ليكو يتيل wax leen lu dul dañ te may wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni leen ma wax leen ko tey mu leer nag yéen jinne ak nit xam ngeen lu tax ma bind leen ñu ni ko amu ah, ni ngeen déggook man oto illa li ni kenn du ko firi ngeen jaamu ma parce que yàlla jàmm ko boo ko jaamu te déggoowu leen jaamu bi du dem fen moo tax nag yàlla wan leen ni leen yéen bu ma leen dee bind pour ngeen déggoog mën a tax bu ko defee kon nag jaamu bu mu mën doon wala même service bu nit mën a rendre kilifaam bu fekkul service ba wala jaamu ga déggoo googu lal ko du am benn sens moo tax bi jinne yi wut wut prétexte biñ leen yàlla ne ñu jàmm nit ñi it di wut prétexte bi leen yàlla ne leen ñu jàmm ñu naan nu ñuy jaamoo ku ñu gisul nu ñuy jaamoo ku ñu gisul mu ne xanaa yéen waaye yow jinne samaam gis na ma جيتنما دموي آدم رآه الجن نزلة ورآه آدم نزلة مني كون لاي جيخنا كوتي نسا مام جيسنما كون لاي جيخنا مون لين بيتي ديس موي فوفا يومبون نا باسكو بوبو امو لين ماتير باسكو ماتير موم منول ا بيرسيفوار يالا dem ñun sax matière bi ci boppam ni tay bo demé ci docteur mu am lu mu bëgg gis ci sa biir yaram moy li ñu tuddé radiographie mais amna appareil bopam yu nga xamni lumière yi mo mëna percer sa yaram pour ñu gis li ci biir pour radiographier ko nit kese kese rek mo laaj yenen appareil te yow yaa ngi nii yaa yor sa yaram yaa ngi xool sa bopp te gisoo ci biir mais am yeneen appareil yoo xam ni moo mën a détecté ba passé lii pour mën a génne li ci sa yaram kon nag yàlla muy sunu boroom war nañoo gëm ni laa tudrikuhu l absar waaye nag yàlla ñu ni la kenn mënu koo gis du tere yow nga xam ni foo ne gis na la Pourquoi tu fais? Ah, ah, tout Allah récréation <laughs> en pédagogie de est ndax Les Elle bi yu mel mu bu la waxee ni la kenn mënuma gis du tere yow nga gëm ni foo ne moom mu ngi lay gis bi ci des itam gis gi muy gis ñi mu am te kenn réeru ko moo tax ba muy jëflanteeg ñi ko gëm te sopp ko booba synagogue amagul monastère amagul mosquée amagul inna asxaabal kahfi warraqimi kaanu min ayatina ajaban xoolal bu jëkkoon ñi gëmoon yàlla te boobu jàkk amul synagogue amul monastère amul ñu sonal leen ci gëm gi ñu gëm yàlla ba buur bi di utiliser ay moyens pour jéem leen persécuter mu jaral leen ñu daw bàyyi seeni famille bàyyi dugg ci ay grotte mooy asxaabul kahf bi ngeen di dégg ak asxaabul raqim koleel asxaabul raqim ñoo ñu ñoo gën a yéemeeti asxaabul raqim ñooy ñaan ay nit la yu jékki-jékki li ñoo tuddee les phénomènes naturels am noonu ngelaw bari bari yu bari di daanu mooy comme seen genre yi ngeen di gis ci jamono léegi ah ñu di ko tudd ci les côtes américaines ak yu kenn xamul muy ngelaw yooyu di daaneel lu ne ah ku ci nekk ak façon ba nga ko tuddee genre yu mel noonu daf daan am bi mu amee nag bu ëpp ñoom itam ñu seet fu ñuy daw pour seelu fa ba ngelaw le dal ñu dugg ci benn grotte naka lañu dugg tuuti rek nekke ngelaw li euh, daaneel benn doj doj bi ñëw ba ci buntu fi ñu duggee woon mu sakk bunt bi ci doj boo xam ni bu ñu indi woon junney nit mënuñu ko randal ñu dugg ci biir toj bi te léegi mënuñu ko randal te kenn xamul ni ñu nga fa te léegi bu ñu génnul dee ci biir ñu seet seet ban pexe la def pour génn ki gën a mag ci ñoom ni leen mais du da ngeen yàlla ñu ne waaw mu ne mais tey lañuy xam ku muy dëgg ci yow ndax yàlla itam nag boo ko gëmee am na fu mu la war a feeñu comme doj bi daldi dinay sakk bunt bi te ñun ñi mënuñu ko fee fexe ba jële ko kenn ku ne ci ñun ñett ñi fi ne na fàttaliku lu mu mas def ci dundam te mu wóor ko ni ba mu koy def yàlla rekk a tax bu ko waxee ñu seet ba xam ndax yàlla nangu na comme déet kenn ki commencé ni man de dama amoon samay wayjur jur yi fa ñu ne ak man fa may ne di leen waajalal pour lu ñuy mos sore yoo benn bis nag ma di leen defaral lu ñu wara reere keroog asamaan si naxari bi reer bi bare ma jël ko ak li asamaan si doy waar doy waar may daw pour bëgg ñu reer bala ñuy tëdd bi may yegg si fekk na ñu gëmmentu ba nelaw bi ñu gëmmantoo ba nelaw ñaari yëf jàpp ma naka laa leen di bàyyee ñu nelaw ba suba te duñu reer dana metti ci man waaye itam comme dañoo sonn ñu ngi nelaw ma di leen yee boobu it diis na ci man mu ni na ma yeenoo reer ba noonu laa taxawee foofa di xaar ñu yeewu ba bi ganaar sabee lañu soog a yeewu ma soog leen taaj reer ba mu faf nekk ndékki bu fekkee ni yàlla taxoon ma di ko def ak fonk ay waajur yàlla na xeer wi dandu xeer wi ni diis tuuti waaye loo xam ni kenn mënu fa jaar pour génn ñu ne keneen ki yow nag mu ni man dafa ma am benn jigéen jigéen bu nga xam ni dama ko masa nopp di ko topp di ko topp lu ne ma def ko pour def ak jigéen bi li ma bëgg jigéen bi lànk ba benn bis jigéen bi am soxla boo xam ni soxla ba def ko jaaxal seet na seet seet seet fu mu war a jaar pour régler soxla bi gisu ko ba mu jaaxle ba mu ëpp nag mu faf dell si ci man ni ma dama am soxla boo xam ne soxla bi daal bu fajuwul li may yàqal dina ëpp ma bëggoon nag bu fekkee ni man nga ma dimbale ci diggante nit ak nit nga lebal ma lu ma ko faje nga lebal ma ko bu fekkee ni nag sa bakkan xeyna xir ne na la ca la nga fi doon sakku te fekk amuloo loolu dooma jox xaalis bi ba tey ma wekku ci yàlla nangul la ko ndax lii bu ma ko rek lewul naa sàggi sama sak. moom ku góor ki mooy wax de mu ni bi ko ndaw si waxee loolu mu ni ko ah man nag na la bëggee woon laa la bëggee ba tey kon nag li ma la doon sàkku boo mënee nga may ma nee na amul pexe nee ndaw si nangul ko ko nee ba mu summeeku summi ndaw si nee na ba am yéene pour bëgg ñëw yéeg ci kawam nee ndaw si ni ko nga baal ma ma wax la benn baat mu ni ko ban baat mu ni ko enveloppe bu yàlla bu mu kaste ba noppi te dafa am kum ko bëgg jox boo teppee enveloppe ba te fekk joxu la ko ndax bàyyi nga ci xel nee na waa ji xalaat li mu ko wax nee na ni ko ah loolu nag di seetluwuma ko woon yàlla la baaxee nga wax ma ko kon nag jëlal alal ji maa la ko may ci xol bu sel nee na jëfantewuma ak moom dara ma ni yàlla nag bu dee loola ma def yaa tax na doj bi randu nee na doj bi da randuwaat tuuti nee na ñu ne ñetteel bi yow nag mu ni dama amoon koo xam ni dama ko mës a embauché pour mu dem nekkal ma sàmm di ma sàmmal samay nag ak samay xar ma di ko war a fay di ko fay di ko fay ba benn weer boo xam ni dafa liggéey ba weer bi bëgg a jeex ma war ko fay mu tukki bi mu tukkee gisuma ko gisuma ko ba ma faf jël la ma ko waroon fay ma jënde ko beneen nag mu ne ko nag boobu juraat yeneen doom ba faf nekkat beneen gétt ba mu toogee ba jëmmi jamono ka mu waroon fay fay ba soog a ñibbisi ñëw ni ko sama fay bi lay jëlsi ba nga ma amee loon nee na mu ne ko fay ba moo jënd gétt gi yëpp kon léegi gétt gi yëpp yaa ko moom mu ne bu fekkee ne nag def ga ma def loolu yàlla moo tax na xeer wi dandu rek xeer wi daal mel ni dañ ko sànni ñu ànd ñoom ñett ñu génn pour wax la ni la yàlla am na nu mu yége nit di ko yége ku ko sopp di ko yége ku ko sédd te ba mu koy def booba jàkk amagul monastère amagul synagogue amagul كنا إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بوكا في كنا كم خمدي قوغولا يالبغون سافرهم كلي يوني يوننتي كما سيتا آدم ñuy ñëw rek pour dindi xamati googu parce que budul loolu nan lañuy mën a waxe yonent yi yàlla am nga xam ni bu ñu waxee par le désordre mën nañu compter cent vingt mille prophètes yu yàlla yónni mais bu ñu waxee par ordre li ñuy mën a nangu mooy lu mat ñaar fukki yonent ak juróom yi yàlla tudd ci biir alquran mais ci biir ñaar fukki yonent yooyu ak juróom ñette ci yor diine yii ba abadan muusa yàlla yónni ko al yahudiya judaïsme isa muy jésus christ yàlla yónni ko an nasraniya muy le christianisme ak muhammad yàlla yónni ko al islam donc c'est l'islam ñett avons ñoo yore symbole yi yàlla officiellement pour que lu ko nit di rendre ti mu jaar ko ci donc li ma a wax ni ay par excellence Nous ñoom temple yi ëpp nañu li ñu leen tudde te mooy lieu de culte ëpp nañ ko mais ay télécentre par excellence la parce que nit dafa am émigré bu nekk ci moom ngeen xam ni kan du yéen rek kay émigré émigré yàgg na nit mu ngi yore émigré bu nekk ci moom bu ñuy wax roox roox dëkku fi fii territoire u la territoire yaram la c'est la matière kon esprit bu fi mais immigré la comme nag dafa bàyyi moom sa demeure originelle ñëw fii mais moom dafa am régiment bu mu bokk moom ruux comme jamono bu nekk régiment ba mu bokk war nañu parce que il est en résidence surveillée Aha, -huh. Il est en résidence surveillée parce que dëkku fi moo tax j'ai bien aimé bi ñuy nekk ndongo nek ca daara ja ca Tiwaawoon am fa sunu benn wéyjur bu ñuy wax Amadou Diallo kana xam ngeen ko bu koor masaan jot pour mu war a nodd nodd bu jëkk pour nit ñi jóg xëdd bu noddee ba noppi def naan jóg leen waaj jóg leen waaj ngay dégg nag écho bi ci fajar gi baat biy dem fu ne mu naan jóg leen waaj fii dëkkuñu fi dañu fii jóg waaw jóg leen waaj donc eh, benn expression bu nga xam ni dafa des ci